mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag ñu ngi ci 12 janvier 2020 euh, muy ñaareelu émission ci at bi ma am mbégte mu rëy euh, dalal ci euh, pour la première fois Babacar mbay Ndack di bindkat di itam gëstukat ñu ngi lay nuyu sëriñ bi di la gërëm ci disponibilité bi. waaw maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. bala ñuy dugg ci waxtaan bi nga xam ne tey dañu ko jagleel Jéeri Joor Ndeela Fall bokk ci ñi nga xam ne xëy na Sénégal. daal waruñu leen a fàtte ndax euh, seen jaar-jaar ak euh, xëy na seen jàmbaar euh, dañuy bëgg itam nga xamale sa bopp ak auditeurs yi ni ma ko waxee guléet la ñu la fiy dalal kon baax na nga présenté wu ci ñi la xamul. waaw ah, man nag jàngalekat laa wàllu mboor wàllu mboor mooy histoire moom laa doon jàngale ba jël retraite waaye dama ko boolewoon woon itam di yëngatu ci wàllu aada ak cosaan ci wàllu mbatit moom la ñuy wax culture ci laa mas a yëngu euh, ci laa tàggat itam ay xale yu bare bari ci réew mi seen maas ñoo xam ne ñu ngi ci journalisme ñi nekk ci culture bi ci yeneen wàll ñi nekk ci woy ak yu bare bari euh, dama ko mas a def sama yitte daal ndax am réew bu bëggee dox doomu réew ma fokk euh, pàcc làcc réew mépp ñu gëstu ko seet lan moo fa am lu baax lu jag loo xam ne mën nañ koo wéel loolu mooy aada aada bu saxee te sell ku ko buddi dara tuuru loolu mag ñu wax euh, te boo amee ay aada yu rafet da nga koy sulli pour euh, xale yi gis ko mën koo roy ndax euh, sunu réew mi dafa bokkoon ci réew mi nga xam ne tubaab bi dafa ñu woon faax bëgg fee effacer lépp nag bëgg fee dindi sunu lépp lu baax indi yëfu boppam indi yëfu boppam jàngal na ko sol nu ko ah loolu nag loolu nu def ñun sunu xare xare bi mu nekk nun looloon def lépp lu ñu suuloon ci lu baax ñu sulli ko képp ku ñu suuloon ci ku baax ñu wane ko wane lu baax la mu yoroon ba réew mi man euh, man am euh, ay royuwaay ñoo xam ni xale yi mën nañ leen a topp mën nañ leen a déglu ak jikko yoo xam ni mën nañ koo nàmmee waa réew mi loolu daal mooy sunu sunu yitte ci lañ nekk suba ngoon. ñu ràññee la aussi ci ci réseaux sociaux yi ku mel ni man ci surtout sa mbindum wolof moo attiré sama attention. waaw xam nga nekk boo bëggee euh, yëngatu ci sa mboorum réew ak mbateetu réew réew ma fokk na nga lu ci làkk ya mm. euh, te man wolof laa nàmp kon war naa gëstu ci làkk wolof. waaye maa ngi góor góorgóorlu ci yeneen yeneen làkk réew mi tam li waaw mm. ah, fu mu mës a affecté comme fu mel ni Sédhiou waaw ah, demoon naa bay làkk euh, soose nu ma neexee nag ah nu ma neexee ba ñëpp xam nañ ko mm. loolu la ko euh, parce que euh, làkk woo gis am na lu mu làkk mm. làkk woo gis am na lu mu làkk maa looloo indi làkk moo tax ma ni ku làkk fukki làkk làkk fukki xel day yokk intelligence. day yokk sa xam-xam. intelligence lu yàllaa koy def ci nit. intelligence ak cër la. bu ma doon day mel ni lu mel ni xol mu nekk ci nit. nga xam ni day rëy mbaa mu tuuti. waaye xam-xam. xam-xam moom yàlla da lay sa intelligence boobu moo lay may loo yootu ci loo bëgg a xam xam ko hmm. càmbar ko mën koo jotali jottali man koo jottali bi nag moo tax ñu naan jàngalekat ndax nit mën naa am xam-xam te du mën a jàngale mën nga am xam te doo mën a jàngale waaye boo mënee jottali xam nu ñuy jottalee da nga doon jàngalkat bu mag mm-hmm. te dañ lay déglu mm-hmm. kon ñu dugg ci waxtaan wi tey am na solo dinañu ko yeggali ci kanam tuuti ndax am na benn ponk waaye yaakaar naa ne waxtaan wi moo ko war a jiitoo ñuy waxtaanee Diéry euh, Dior Ndéla Fall man ak ñu mel ni man dañu koy dégg te xamuñu mooy kan euh, kanay jëri joor ndee la kajoor kajoor la ni man de hmm. waaye ma am la ci man ak yow ak ak ci Sénégal jëri Fall la tudd jëri Fall xam nga ñun wolof ak askan yu bari sax yu wër wolof yi hmm. bu nu jëlee nit dañ koy dàkkantale ndeyam kër ndey dafa foor hmm. kajoor nag ku fa falu buur ñoo ko dameel sa kër ndey sa kër ndey di ci am doole moo tax juróom-ñaari kër ndey ñoo amoon kajoor ku fa juddoo mën ngaa xalaat ëllëg mën ngaa doon dameelu kajoor mooy mu yooy wagadu saño béy gelawaar dorobe ak géej yooyu ay néeg la néegu ndey la te ku ci bokkul mënoo falu. ñoom rek ñoo daan falu. ñoom rek ñoo daan falu néegu ndey yooyu. ñoo daan falu am na ñetti kër bàyyi nag waaye ñetti kër bàyyi taxul nga mën a falu. kër Ceyaasin bokk fee. kër Maajoor ak kër Cendee la Fall la sant. boo ci bokkul mënoo falu waaye boo ca bokkee te bokkoo ci. néegu ndey eh, doo mën a falu. Lat Joor doo nga ci sant Jóob. ci dameel boo déggee waaye kër ndeyam a tax ay jàmbaar lañu kër ndeyam géej lañu mm. géej da ko doon ne ci maamam ci ndeyam Ngoné Latyr ak maamam Maïssa Tend joor ñoom ñëpp ay bokk lañu mm. moo tax man la Dior Diène la Fall la sant Samba yaaya Debbo Sukka mooy baayam Samba yaaya baayam ma nga daanoo ndar ndax euh, bi ñu xëccoo Kajoor ci jamono jooju nga xam ni moo mujj ci jamono ceddo yi ba tubaab bi dugg ci réew mi jamono yooyu euh, la ko tubaab bi convoqué ndar bañ ko wooyee ndar ba mu ñëw ne ñu téye ko fa waajuram ah débasu ko soxna débasu ko faatu tubaab bi ñu ko doo doo mën a dem mu xaru sama yaaya daa xaru waaw moom moo daanu ca dex ba. ci dex gi xam nga ceddoo kenn du ko toroxal. waaw mag ñi wax nañ ne daa duy tubay ji ba mu fees dell ak xeer nga xam ni dootu mën a génn mu yo sobu ci ndox bi. Hmm? ceddoo ragaluñu woon dee ndax ñu amoon lu ñu gëm moo tax. ceddo boo ko déggee nag du kuy naan sàngara ceddo. waaw kon wax ñu luy ceddo ndax tey bu ñu déggee ceddo beneen beneen. Euh, ceddo du kuy naan sàngara. mën naa naan sàngara nag moom waaye du koy naan sàngara mooy ceddo ndax ko doon bu doon loolu réew mi euh, soba du fi du fi du fi am bénéfice <laughs> ndax ay jullit yu àqan ñoo hmm. naan sàngara fii ci réew mi luy ceddo koo xam ne du fen du wor du dëpp du daw du daay te ñi juróomi jikko yooyu ma la wax ku mu nekk ci yow fu la lislaam fekk dina la teral ku dul fen hmm. doo wor kooku doy na sëkk. ceddo noonu lañ meloon. waa lan moo ñu jëlee ci yooyu indi ñu ci tey ceddoog bu ñu caricaturé ni nga xam ne bu ñu ko waxee mooy ku gëmul dara. xëy na xam nga diine bi mu ñëwee. diine diine joo gis fu muy samp. Mm. fokk mu xeex fa nekkoon. dama lay jox dama jox ci firnde. Mm-hmm. gis bi fu ñuy fee xeexee lislaam mm. gis nga ni koy xeexee. dañuy jéem a saboté baat ya. ñaawal mbir dañuy ñaawal baat ya tey boo taxawoon Europe koo dégg mu naan islam baatu islam rek nit ñi nit mm-hmm. parce que dañu méngale lislaam ak. ak ak ak faat rey ak nangam. tubaab lañu fexee di ko wone ci télé yi ak rajo yi mm-hmm. ba nga xam ni daa mel ni lislaam mm-hmm. rey la faat ak lu ñaaw loolu combat culturel la xare boobu nag am na xare bu ko war a bu ko war a euh, bu ko war a gàttaloo ñun ñoo ko war a yor ñun jullit yi noonu la ñu def ba tey foo déggee baatum nègre nègre la wax ku leen ne yow tey négresse nga bëgg a xeex mm-hmm. te pourtant négresse nga négresse culture la mm-hmm. bokkul ak noir noir couleur la mm-hmm. noir couleur la nègre culture la moo tax Cheikh Anta Diop tuddee téereem bu mag boobu nation nègre et culture. dafa am lu mu doon corriger. ci tubaab yi. nit ñu yabe woon ba di ñu sëf yu mel noonu. dafa fekk ñu naan ethnie ak i bi te pourtant tubaab yi ñoom duñu wax ethnie tribu ci ñoom. ci seen i différence. Cheikh Anta dañ ñoo yeb ñu ay nation la ñu. moo tax mu def ko nation nègre et culture nation. ak nègre loolu Cheikh Anta indi ci révolution culturelle borom xam-xam noonu lay mel day xam fu muy tontoo ak nu muy tontoo mu installé ko moo tax muy ndaanaan waaw loolu waaw ñu dellu si ci jéer yi euh, euh, way ju xam dafa daanu ca dex ba ndax dañ ne ko du dem ca dëj ba Samba Yaaya Debba Supa Samba mhm. bi mu bi mu faloo dafa jël tur euh, am ama amari amari ngoone deux dameel yi dañoo dañoo dañoo farloon loolu Lat bi nga xamee ni falu na dafa jël tur dafa jël turu bees ak ñu bare bare bu ñu faloo rek dañuy am turu fal mooy titre mooy waaw turu fal titre bu mooy dameel mooy dañuy soppi tur seen benn maam bu ñu bëgg lañuy mm. jël turam def ko nag deux mm. comme ma nga dee rek nga 2 fekkoon nga am mbër mu mag ci séeréer yi. bi mu fëlee mu daan nañ ko wax Manga 2. la ci réew mi. jéeri nag euh, histoire am dafa dafa doy waar. Mm. man maa ngi dégg bi ma nekkee xale. maa ngi woon cinquième lycée Blaise Diagne 1973. soo maam borom xam-xam ci wàllu histoire ndaanaan la woon. Mm. ñu bari xam nañ ko baax a baax a baax ci enfin ñu xam cosaan réew mi cosaanu Kajoor. sama maam jarga benn bis man dama teel teela dama teel a sob daal mhm. dama teel bëgg laajte dama teel a bëgg cosaan mu gis ma may bind rek mhm. benn bis mu woo ma mu ñëw man xam nga ci Kajoor daal man ko déedéet moom laa bëgg a xam sax moo tax may gis mhm. ma ne ko waaw jéeri mi ñuy dégg lan la comme li nga def ni yow tey mu dema nettali histoire jéeri mu bind ko 73 ba léegi carnet baa ngi fii baa ngay dem ma woon la ko <laughs> 73. benn carnet bu ndaw petit carnet laa def histoire bi ma doon nettali. ma toog ba bi ma nekkee professeur itam maam sama maam joo xam dama doon dem di ko seeti. sama maam Thion Seck moom lañ tuddee ah Thion mii. ma dem di ko laaj li la ma doon nettali moom. histoire yu jéeri jéeri Fall. histoire sëñ Touba. ak histoire bu maari yi ñu bokk. ñett yi moom wax na ma ko ba mu def ci ay bande ba xam naa ci dara daal. Mhm. waaye loolu doyul pour pour nga def ndax dañu nekk societé boo xam ni oralité lañ koy wooye mm-hmm. maanaam ci wax. wax la ñuy jottalante xam-xam. wax la ñuy jottalante xam mm-hmm. te mag ñi lépp nañu léeb yu bari nag bàyyi fi. Mm. dañ ni histoire ci boppam am na bu nuy béral mm. waaye am na bu ñuy dexañ. mag ñi xam nañ ni histoire dafa dafa doy waar. Mhm. parfois dafa sensible. ah doy waar moo tax man dafa doy waar. Ah, looy nettali ci loo fekkee fekkewoo ko. Mhm. nañ ci mën a teg see baaraam. Mhm. day loo xam ne mën nañ ci teg baaraam ndax fekkewoo ko. nan la ko nettali rek. kala ko nettali lan la doon ci histoire ba. nan la ko déggee ci yan kàddu lañ ko ko jotulee. am dafa am solo moo tax euh, man bu ma waxtaan ci mag ñu baax ñooñu dama naan. fii laa jëlee samay. Mhm. li ma xam samay maam. Mhm. man samay maam macha allah ci wàllu histoire rek. Mhm. sama maam ba pare bind téere histoire. histoire Kajoor ak Bawol ak Jolof ak Waalo ak yi ma yarandool ah ba ma dee gone dama doon dégg ñu wax lu bari bari ci histoire Sénégal ma di jàpp di bind di bind rek bañ naan xale bi moom day bind rek loolu laa laggee waaye damaa dem archive nationale dem université aussi jàngi jàng ay téere yu bari bari ñu bari bind ci histoire Sénégal ma jël leen càmbar leen méngal leen ak li nga xam ne dégg naa ko ci mag ñi li ma jàng ci téere yi ak li nga xam ne mag ñi nett lañ ma ko ma essayé méngal leen moo tax tey jii am na ñoo xam ne yu bari ci histoire réew mi mhm. mën naa ci wax ndax dama jël samay tànk ak samay sama sama koppar nangoo paas ba dem fekk ay mag ci biir réew mi Casamance ba Saalum ba Kajoor fu mu ne am na mag mu nangam mu yóbbu fa samay élève ànd ak ñoom dem fekki mag mbaa ma jóge fii sama kër paas dem fekki mag ne ko dama bëgg am lu ma xam ci nangam ak nangam mhm. ci noonu laa gëstoo daal ba ñu ci saaru Euh, histoire histoire mag ñi. histoire jéeri nag da noonu la ma intéressé. jéeri nag li tax mu siiw mooy euh, loolu nga xam ni moo xewoon Thiès. 7 hmm. avril 1904 li ko indi nag mooy jéeri dafa doomu ndey ji ñu waaye Kanaar Fall xam nga tubaab bi ñëwee ci réew mi hmm. lépp luy fàttali suñu cosaan lañ ko dem jëm a suul moo tax dañoo suul titre yi nga xam ni moom la suñu kilifa yi suñu njiit yi daan yor ba ñu supprimer dameel dañoo def benn poste bu ñu wooyee confédération du Kajoor jox ko Demba Demba maanaam dameel bi lañ bañ. mu nekkat ci xelu nit ñi. bawol itam teeñ ma fa amoon. Mm-hmm. ñu dindi baatu teeñ boobu. Mm-hmm. daal daal fay eh, teg chef supérieur du Bawol. nga xam ne kañ ñuy namee kenn dootu ko wax. waaw kenn dootu ko ñemee wax teeñ. waaye chef fay teg. chef supérieur lañ koy waaye te ñoo koy tànn. yaa ngi dégg de baat baat delloo ci cosaan rek lañ mën ñu kenn ko tëral léegi nag bi nga xamee ni kajoor tas nañ ko ba teg fa demawaar jël bawol ñu teg fa kanaar faal mais xam nga bu ñu la tegee baat bi rek moo sa soppeeku. waaye cër yi nga daan am da nga koy bëgg am ba léegi. teeñ nag buñ ko masaan fal ñun dañ daan fal mm. ñu tabat dañ daan fal. fal waaw dañuy wote. dañuy wote. association bu ñu woowee jàmboor. Mm. ñoom ñoo la daan fal. waaye réew ñoo lay fal nga xam ne ñu démocratie yàgg na si ñun. Mm-hmm. bu ñu masaan fal teeñ nag dafa am famille yoo xam ne ñoo lay jox ay jaam. boo demee Bawol. ñu sant Saar da ko waxal jàmm bu ñu ma fal teeñ ñoo koy jox jànq ak waxambaane yaa ngi dégg ah. xam nga loolu la ñuy wax ci tubaab ñaari xale yoo xam bu ñu demee ci buur la ñuy nekk ñooy nekk ay serviteur premier serviteur buur beeg hmm. ay xal lañ koy jox yu nekk seen di kàttan ah. ab jànq ak xale bu góor bi nga xamee nag moom fal nañ ko mu laaj loolu waaw waxal jàmm ko na ñun ko daan jox te tey jàmbur yi ñoo ko doon fal. tey te amatu fi te yow tubaab yi moom nag dégg naa ci ñëpp nettali nag ci la demee nag jël waalam daal jàpp ci ñooñu waa waxal jàmm jàpp ci ay jaam yu bare bare bare. moom Kànnaar Faal moom nga xamee ne nag bëgg naa takk gañ sëri Faal di rakk rakku jéeri da leen jox ay jaam xam nga jaam marchandise la woon. waaw ah, ci jamono yooyu marchandise la woon. mu jël ci jaam yooyu nag jox jéeri. jox ko ko comme nu mu tuddati koy woowee sola dood la. may gu njëkk may gu njëkk waaw ñu jox ko waaye ci may gi daal la bokk. def ko ci sëy bi daal def ko ci sëy bi. jéeri itam jël na ci jaay parce que boo amee euh, jaam. alal la hmm. mu jël ci jaay fajaay soxlaam fekk tubaab bi muy ñëw ci réew mi moom nee na pour toog ci réew mi benn projet leur Afrique dañ fiy jëlee li ñuy wax sacrifice humain comme ni ñuy attaqué dawme waaye dañ fiy jëlee esclavage te ñoom kat nekkati yow beneen esclavage la ñuy ndax nga ñëw ci réewu jàmbur. dindi fa nekk yëpp noot leen. kii leen beneen njaam nga indi. da nga faa dindi ak njaam. bëgg a installé sa njaam yow. noonu la tubaab def ci réew ba mu defee noonu nag commandant Prempeh moo nekkoon Thiès. yëg affaire nag ndax euh, waa waxal jàmm nañ koo métti ndax du seen aada te dañuy jël seeni doom ñu métti ko nag euh, def seeni plainte ak yëpp commandant Thiès nag convoqué Canard ak Yéri ñu leen convoqué le avril sama maam Thion nee na ma Yéri ma nga jógee Njaay àll dëkk bu ñax Njaay àll ci biir Kajoor fa la jógee ànd ak xaritam sëriñ ca Masamba Daara Jéey ñu ànd ñëw ngay mexe bu ñu ñëwee ngay mexe ñu rëppatal wuti Thiès ba ñu ñëwee Thiès dégg naa ni bisu dimanche la sax bisu dimanche dañ fa yegg si le 4 dañu convoqué le 2 le 4 dañ ñëw commandant bi recevoir leen moo Canaar daa wax nag ne leen léegi France dootu nangu kenn nekk jàmm. boobu aboli nañu esclavage. waaw aboli nañu esclavage ñoom ñoom 1848 la ñu aboli officiellement officiellement. officiellement la wax de. 1848 mm-hmm. en France. Angleterre def na ko déjà. Mm. Euh, en 1827. léegi bi nga xam ne nii toog nañu ñu daal di euh, commandant ma recevoir leen daal leen wax ne leen dañ leen teg ay daan ni jéeri dañ koy tëj 15 jours fukki fan ak juróom. kanaar nag comme jaayul daa daa joxe rek. daa maye euh, dañ koy def amende. Mm. cent alamande cent franc. maanaam di téeméeri dërëm ci jamono yi ci biiru ba daal lépp xewe parce que Canardoni kon da ngeen def paaka ñaari boor. ndax Salmon Fall mi nga xam ne maa moom ñoo bokk école des fils de chef mais jaay na fi ay jàmm te am na jàmm ba léegi ndax li mu bokk ci yéen rek moo tax topp leen ko ngeen bëgg maa topp man. coow leen kuréel ci bureau ba ba nu coow leen ne nag jéeri sox benn fital. daa ñëw ak fital. waaw daa yoroon pistolet mu sox ko ci dóoru ko kenn de. waaw da koo sox pour war na mu. àndoon tir en ñi mu àndaloon. lay hmm. wan ni am na lu xew. Ah, coow am ñoo ñi mu àndaloon ay gawar la àndal. Ah, ñoo àndaloon sëriñ ci ak moom. Hmm. ay mbokkam ah bi mu kiiyee nag mu daa daw ñëw ñoom sëriñ ci daw ñëw. ñu si biti. fekk ñu bëgg koo yeew te góor kenn du ko yeew ñoom ceddoo. surtout lañ doon bëgg a yeew. waaw parce que moo bañ moo lànk daan loolu du fi amee. Hmm. gars yi nag ni woo ñaari garde yi nga xam ne ñoo encadré woon ñu bokk ko yeew mu mu jë jëngoo ñoom. bi ci ñëwee ci biir nag fekk na ku ñuy woowee Henri Chotan papam moo doon ministre des colonies ca France dañ ko affecté woon rek Sénégal bon xam nga foog nañ leen jaarale pour former leen pour mën leen a yégal après moom mu ngi ci benn bureau la jógee rek dégg coow li mu daw ñëw pour jàppale garde yi moom fa la ko sëri sëri ca fekk moom la jëkk a fekk muy mu jéem a téye jéeri ci suuf du ko dëgg te yooyu moom la jàmpaaka ko jam paaka jam ko baaka bojj ko paaka bi. moom sëriñ ci jéeri. lan la woon ci jéeri. xaritu jéeri la moo ànd ak jéeri. xam ne kii na ko ñu rey ko nag commandant Prempeh daw dugg ci biiram tëju. ñoom dañoo daw de tubaab bi dañoo daw dugg seen bureau tëju. sëriñ ci ànd ak euh, jéeri ñu génn. ñu génn bi ñu génn nag ci lañ dem nag après histoire bi nag ci la amee. d'accord histoire bi nag foofu la tàmbalee. Mhm. Euh, sëriñ ci moom wuti Gambie ndax Gambie anglais la réew jàmbur la. moom Gambie la dem. waaye. daw làqu ji. waaw fa la dem fa la dem làquti euh, waaye jéeri moom. xam na ni lu garaaw am na. Mhm. te tubaab bi dina ko soxla dina ko dina ko dina ko dina mu dem tàggu jay bokkam. Mm. mu dem ci nijaayam ciitu mu rëpp rëppatal dem ciitu dégg naa trente minutes après lañ leen tàmbali dàq waaye moom daal dem na ciitu mm. dem tàggu ji nijaayam Masamba Saasu mm. moo jur yaayu Cheikh Cheikh Anta Diop. Mm-hmm. Maguette Massamba mi ko jur. Mm-hmm. Massamba Saasum Diop moo ko jur. nijaay jéeri la. ceytu la jubal. ceytu dëkku Cheikh dama Cheikh Anta fa juddoo. Mm-hmm. jéeri nijaay la ci Cheikh moo tax Cheikh njàmbaaram xam nañ fu mu jógee. mu daal dem euh, bi mu yeggee ci Massamba Saasum daal koy wax xabaar bi ni mu mu ne ko ah loolu day doy na waar tubaab bii day ku laal yëfam day dina laal say mbir. mu ne ko sama nijaay daw ma dama ñu tàggu si la. nga ñaanal ma daal fay jógee dem sugeer ci nijaayam sàññee ba njëmbat moo doon chef de canton ba mu dem fay itam wax ko ko nijaayam ne ko léegi da ngay bàyyi ma yóbbu la ci tubaab bi bàyyi ma yóbbu la bu ma la yóbboo dina wàññi seen dangar mu ne ko loolu du ko def mu ne ko loolu du ko def nijaay yi mocc ko mocc ko ba mu nangu nekkate tubaab yi yebal nañu Canaar pour mu racheter yebal nañ ko ni ko léegi na fexe ba jëli ko ndax mbokkam la moom rek bokkuñu ni seen famille itam daan ni ko yow rek yaa ko mën a jëli ndax doomu ndeyam nga te yéen a bokk affaire bi donc yow boo ko jëlee xelam dina dal dina mën a ñëw kanaar ànd ak ay gàngooram ñu dem di ko jëli fekk na jéer mu ngi jógee sogeer dégg naa diggante xaagaan ak njuur ñaari dëkk la diggante xaagaan ak njuur mi ngi ànd ak nijaayam sàññemen njëmbat ak buur mbaadaan bir ma ngoon a jiyee nga xam ne ñëw nañ diggante xaagaan nañ jóol nag la seen kanaar faal ak ñi mu àndal mu ne sama nijaay du ma dem ndax kii bu ma yóbboo danaan moom ma jàpp yeew ma indi ma te man yow sama nijaay boo ma yóbboo sama nijaay ma yóbbu war na daal di bañ bi nga xamee ne werante ñu foofu rek nijaay ji jëm koo mocc mu lànk mu bañ ci la may sa tabara joor kan loolu lañ wax de histoire nee nañ mais sa tabar joorkan nga xam moo àndoon ak Kanal Fall moo soqi ay bal ci kaw jéeri waaw moo daw fi kii rek soq ko ñaari bal jéeri bi mu daanoo daan ni daan euh, yi ma àndaloon jàkkale leen ma jàkkale leen dañ ma bëgg a toroxal dégg naa ñëpp ni ko mun ñu mënuñu laa jëkkale mu daal di jël fitalam jéeri ci boppam jël fitalam sex ko hmm? daal koy tiq ak tànk bi ba mu dee nag euh, ñi nee nañu nijaayam dañ ko yóbbu euh, Mboliyaama fa lañ ko suul ndax ma foofu la bëggoon ñu suul ko waxoon na waxtaan na ko na ko ak nijaayam. Hmm. tàgg woon na xamoon na ni. xamoon na dañ koy rey dans tous les cas waxoon na nijaayam lañ ma denc Mboliyaama. Hmm. ndax am na lu tax ay maamam fa nekk. ñii nañu euh, kanaar ak ñu mu àndaloon dañoo dagg bopp bi ak ba loxo bi. Hmm. pour wane preuve que ni. jàpp waaw. am na ci Facebook. waaw benn photo benn photo bu ñu la. Mm-hmm. photo boobu man am naa yaqin ni moom la. jéeri am naa yaqin ni boppam la ak ak ak loxo bi. Mm. ndax dañ ko yóbbu marché Thiès. te fa pour tiital nègre mm-hmm. pour tiital nit ñu ñuul ni ñu leen ku ñu kii nii lañ lay def. noonu daal loolu kanaar ka def. kanaar kanaar waaw moom moo ànd ak ñoom. waaw ànd ak ñoom daanaka. Mm-hmm. ñoom ay mbokku nervi gannaaw loolu tubaab yi dañ ko moom far jéggal amande yi lañ ko doon topp kii nañ ko topp nañ ko topp nañ ko ay amande def naa tëj nañ ko sax après mhm. après nag la ñu xam seen agent secret mhm. xam ni kii mu nga fële Gambie ma nga Gambie waaw ñu ñu fexe ba am benn agent secret bu dem jëli ko mhm. ba boo demee ci Facebook ñu ngi ko gis yaa boo dugal ci Facebook nga gis ko ñu dem jëli ko Gambie Serigne atte ko Serigne dañ koo tëj euh, perpétuité après ñu yóbbu ko Guyane dañ ko exile Guyane ko xam Guyane ma nga ci kaw Brésil foofu lañ ko yóbbu dégg naa ne am na fa ñaari doom am naa benn xarit bu am bu sawar bu ci liggéey bu ñuy wax Lorenzo Italia liggéey na ci liggéey bu am solo te mag moom am na lu bari luñ ci soxalante ndax moom na ay parce que mu nga te sawar na ci loolu ak euh, Mbaye si Sylla itam sama xarit def na ci ay liggéey bu am solo ci wàllu wàllu wàllu recherche yooyu ndax euh, am na histoire yoo xam boo koy nettali il faut nga am fooy teg sa tànk jéeri daal noonu la noonu la mujjee seritier yëpp noonu la mujjee euh, kanaar itam nañ ko dañ euh, atte nañ ko ba def naa tëj nañ ko wala ñu amande ko am amande bu pour loolu daal ndax dañ ko amande cent cent franc ñu ko amande ah il faut ñu appliquer ko ndax ministre des colonies dafa yebal benn benn juge benn juge bu ñuy wooyee Brifo moom moo def rapport bi sax bi nekk archive nationale moo def rapport juge d'instruction. pour wax histoire bi nan la tàmbalee nan la demee nag népp népp ak lan la mujjee. juge bi foofu moo ko def. jéeri nag mi ngi mi ngi daanu ci le deux lañ ko convoqué. le cadre bi am. Mhm. nag euh, mi ngi daanu le ñeenti fan. ci ci weeru mbokk yéen a ngi teewlu seen émission démb ak tey ci réew mi FM ñuy waxtaanee Jëri Joor Ndeela Fall euh, di ci dalal Babacar Mbaye Ndack euh, jàngalekat euh, waaye itam bind kat macha allah gëstu ci lu bare bari surtout ci aada bu réew mi seetlu gi mooy sànq maa ngi ci doon bëgg a ñëw ni ñu am ci ay mag ñu baax ak li ñu fi def yépp tey dafa mel ni Euh, amuñu dara ndax euh, umpale nañu yenn yi xamuñu ñenn ñi lañu ñu def itam kenn du ko waxtaanee kenn sargalu leen kenn njukkalu leen loola jàngalekat bu mel ni yow ban taxaw seetlu nga ci. waaw dama le neuf la daanu. donc euh, le cadre d'affaire bi am. Mhm. waaw le neuf la donc juróomi fan après ci ci la daanu. donc diggante le deux ak le neuf daal. Mhm. ci la histoire boobu am diggante Thiès Ceytu. Mhm. ak Sugeer ak Maliama. Moliya ma nekk fan tey. ma Kajoor dëkki Kajoor la seen dëkk la dëkk dëkk yu bari Fall yi nii ñoo ko sañ si Kajoor. incha allah comme Ndande Fall ay ngay mexe yu bari yooyu daal. Hmm, mag ñi nga xam ne def nañ fi lu ne. Euh, ah. wane fi njàmbaar yu am solo ñu fàtte leen tey fàtte lépp lu ñu defoon yow loola nu ko gisee ak xëy na lu ciy saafara. waa xam nga dañuy wax souvent ni ci baatu tubaab. Hmm. dañoo coloniser woon man nag damay faral di wax ne coloniser wuñ ñu ndax la coloniser da ngay fàtte sax sa te Sénégal ba wàcce aéroport xam nga loo jëkk a dégg. mbaa jàmm ngeen ni ngeen yendoo gars yi ana ngeen. <laughs> loolu nga jëkk a kon coloniser wu ñu woon. dañoo occupé woon suñu réew. waaye occupation bi dafa àndoon ak sabotage. tubaab bi bi fi ñëwee dafa installé benn politique. bu ñu woyee la politique de l' assimilation maanaam def jël nit ñu ñun ni def leen ñu nekk ay nit ñu weex ñu sotti ci seen xalaat. ci seen ah xam-xam ci seeni gëstu ak ci seeni i ah, seen lu ñuy am fierté moo tax bu njëkk nga dégg ay nit ku ñu koo xam ne ah, danaan jàng li ñu daan jàngal non sans être le gaulois maanaam naan gaulois yi ca France ñooy suñuy maam ñu bind ko ci ay woy moo tax woykat yi fii day réew mi am nañu am nañu kii de am nañu mission bu rëy rëy war nañoo woy lii ngay wax ni yow li nga may wax nii na ko wax woykat yi ci réew mi ni leen mbëggeel neex na waaye nañu woy itam fierté ak dignité nañu woy mag ñu baax ñi te woy leen ay woy yu rëy woy yu rëy dañ koy bind bind mu rëy ni Kumba Gawlo moom mi ngi ciy góorgóorlu mi nañ ko woy woy yu rëy bind ko mbind mu rëy moo xam nañuy seeti ñi am xam-xam ndax euh, woy boroom a koy dëbbe te sunu woy kenn duñu ko bindal du tubaab nu koy bindal dama ni woy boroomu koy dëbbe ñun sunu woy noo ko war a bind noo ko war a dëbbe ku bëgg na awnu waaye noo koy dëbbeel suñu bopp loolu loolu la mag ñi bàyyi léegi nag yéen yéen ci ëpp mission man dama ni média yi ku leen neex mën lañ koo taal ku ñu taal ñu koy siiw lu ñu wax lu ñu tudd répété ko ñëpp xam ko kon ci yéen la bal bi nekk actuellement ci jamono ji ñu toll. am nañ ci wàll wu rëy. waaw da ci am premier wàll. Mm. waaye wàll wi ci desam ci kilifa yi la. ak kilifa gu mën di doon. Mm. aada ak cosaan nañuy fàttali mag ñu baax ñi seen jikko yu baax yi euh, damay dégg ay kilifa diine yi yoo xam ne seen wàll ñu ngi koy defle mm. ñu ngi fàttaliku nitu diine yu baax yi fi nekkoon. di ci ay conférence ñu ngi fàttaliku maam yi nga xam ne dañoo amoon fit am njàmbaar ñu ngi leen di fàttali léegi nag bindkat yi waykat yi way mooy taalif ak waykat yi ñi nga xam ne taalif yooyu ñoo koy jël di ko waye ak seen baat yu neex am nañu problème ndax li nga ma posé nii ci question lañ ma laaj ñoom ñooñu ñoo ko war a firi ñoo ko war a firi ndax euh, xam histoire rek doyul waaye man koo génne lu am solo la. man nag maa ngi góorgóorlu man sama wàll danga maa laaj. waaw waxu waxuma sama bopp yaa ma laaj. moo tax man la li may bind nii. Mhm. yi ma la woon gëstu. maa ngi bind ci ay Aline Sitoé Diatta. Mhm. maa ñëpp maa ngi jéem a gëstu. Mhm. di laaj seeni mbokk ak seen ak li ma ci xam. ma essayé bind ci ñoom lu mu néew néew néew. ay téere ak ay ay am na yoo xam ne way naa ko. ah da nga way laa wax bind way ba pare wax ko ñu ànd musique sama mag Cheikh Tidiane Tall yàlla na ko suñu borom yërëm tabal ko àjjana sama premier album yi ma def ci wàllu aada ak cosaan moo leen musique ma woy leen bala ngay dem ma jox la ba nga teg ko ay taalif ma woy leen woy na ay kilifa yu mag ci réew mi woy seen aada seen cosaan wax li tax ma woy leen am na benn jamono boo xam ni ku daa déglu ñoom Kiné Lam ak Dial Mbaye seen kaso yooyu ci jamono. Mm. doy doy na jàng histoire Sénégal. lu leer laa wax dama ni nga déglu Kiné mm-hmm. ak Dial Mbaye mm-hmm. ci histoire cosaan ak ñañu way. Mm-hmm. ndax ku ñu way delloo nañ say maam. delloo la ci contexte boobu nga xam ni. foofu nga juddoo. loolu lu am solo man loolu laay encouragé ñi nga xam ne dañ bëgg a woy way wu am njëriñ. ndax wax ju am wax ju amul njëriñ amul wala amul njëriñ amul njëriñ aussi. am na solo ñu wéyal waxtaan bi euh, ñëwaat ci histoire bi nga xam ne tey moom lañu ñu fi euh, tas muy euh, bu Jéeri Joor Ndeela ñu jàng ci xarit ndax sëri ci bu demee ba mën a faat bakkan ngir Jéeri Joor Ndeela mooy xaritoo boobu bu bu wér la ndax moom itam xamoon na la ko ca mënoon a fekk. waaw noonu la xarit di mel. moo tax wala fi wax ne xarit dina gën doomu ndey doomu ndey sax kenn du ko gën doomu ndey kenn du ko gën yàlla daaf. daa yàlla moo faral fa moo faral mbokk. Mm-hmm. wax ci lu lu rëy. Mm-hmm. dañuy euh, ku fonk mbokk mu jokk la ku ko dox mu yokk la. moo tax ñuy dox seeni mbokk yëpp ñoo fi mooy mujj ci kaskan ma mm-hmm. kon mbokk kenn ko kenn du ko gën. waaye xarit bu dem ba nekk sa doomu ndey mm. dana gën sa doomu ndey mm. ndax daa doon sa doomu ndey ba pare mm. doon sa xarit. waaw ah, loolu laa te dégg ji man. dëgg dégg ah, xarit bu doon sa doomu ndey. Mm-hmm. ah dana gën sa doomu ndey. Mm-hmm. <laughs> wala yasib loolu am léegi loolu c'est magnifié. Mm-hmm. l'amitié. xaritoo. Ah, gis nga ko du moom rek de. la Dior ñu mujj àndal yëpp ay xaritam lañu. ba muy dem dëkkale. le 27 octobre. le 26 ca ngoon. mercredi le 26 octobre 1886. ba muy dem ñu mujj yëpp ay bokkam la ak ak xaritam. xarit dafa am solo. Euh, c'est pour la vie et la mort. histoire jéeri nii leneen lan lañ ci mën a jàng surtout moom ci taxawaayam moom jéeri génération tey bi bu ñu doon xëy na am lu ñuy rootee foofa lan lay doon. waaw du doon affaire u ndax jaam amatul. waaye jamono yooyu dafa amoon. waaw te lu la woon. non c'était légal. waaw c'était normal. société boo ko mhm. am jàmm ma ne sëriñ doon jàngale diine. Mhm. dañ daa ay jaam. Mhm. ndax institution sociale la woon ci jamono yooyu. waaye tey jaam amatul jaam jeex na genn rek a fi des yàlla te ñun ñëpp la ci kaw suuf ñooy jaamu yàlla ak ku nu mën di doon ak nunu mën di toll ay jaamu yàlla doon donc comme loolu jeex na léegi li may attee man jéeri tey li ma attee mooy dafa dox ci xelum jamonoom te la xewoon ca jamonoom ca la doxe waaye lañ ko yare itam moom la tontoo jamono dañ ko yar ci fit ak bañ ko la gàcceel ak bañ ko la jëm bañ koo la yàpp bañ ko la toroxal loolu tax mu dee ndax leen laa jàng bu nangoon ñu ko ba ñu ne kay dañ lay tëj kaso rek la daal di fut daal man du dugg kaso garmi du dugg kaso dégg nga ko rek kon xam na boppam ak xam boppam ci baat boobu laa xam na bopp kon xam sa bopp baax na xam sa bopp baax na saa moom dani ku xamul boppam loo yor doo xam foo ko jëmee te ku xamul foo jëm doo doo xam loo yor doo xam foo ko jëmee. waaw ku xamul sa bopp ah doo xam foo jëm. te ku xamul foo jëm loo yor doo xam foo ko jëmee. jéeri daa xamoon boppam xamoon na ni garmi la. te garmi kenn du ko tolxal waxuntuma laag di ko tëj kaso naan da koy tëj kaso. waxuntuma laag nag bëgg koo yeew loolu tax mu fippu. moo tax bu doon tay ñun la ah garaawul 15 jours yàggul dama tëdd ko rek mu jeex nga génn. moom déedéet xalaatul loolu. du mm. kaso ba. ñu muy tëddal kaso askanam lay xalaat askan wa moo taxawal foofu ñoom la bëgg ñu am ndam te noonu lañ leen yare noonu lañ ñu doon yare ñun ci réew mi. kon nit foo ne war ngaa soraale saw askan. dama ne foo toog toog nga fa sa ndey ak sa baay. am na kaset bu ma ko woyoon. Mhm. sama kaset nag foo toog am nga toogal nga fa sa ndey ak sa baay. solo bu ñu xoolee dérive yi am tey yëpp ci ci ci ci génération bi sax laay wax du jeunes yi mais yenn mag sax da ngay gis yoo xam ne da yi. waaw yow jeune. Mhm. yow xale Sénégal. juddoo ci réew mi yow laay waxal foo toog na fa toogal sa ndey ak sa baay na fa toogal sa xarit yëpp na fa toogal sa mbokk yëpp na nga leen bañal lu bon bëggal leen fa lu baax yow laay waxal loolu moom solo ci àddina boo ko defee rek danga am ndam am say bokk am say xarit am yàlla ndax yàlla ndax yàlla daa bëgg mm. daa bëgg ku xam boppam bu weesoo xam sa bopp jéeri lu muy jàngal. Euh, ba muy daanu dégg nga ko bañ ko fetalee rek la ne jàkkali leen ma. ndax dañ ma bëgg a toroxal moom moo jàkkali boppam maanaam xam na ne ay bokkam amuñu euh, yërëm lañ ko. amuñu xolu di ko di ko di ko fetal moom mu defal ko boppam foofu la fit mën a yem waaye noonu lañ leen yare woon. dañ mm. leen yare woon ci na ma tàmbalee woon waxtaan wi. Mm-hmm. dama leen ni ceddo du fen du wor du daw du dëpp du daay te jaxam fen du wor ñaari baat yooyu rek mën naa ci am soo maam daf ma daan wax ni ma gis nga rek maam dafa am solo soo maam jaar ko daf ma daan wax ni ma Sénégal boo bëggee nekk doomu réew mi dëgg-dëgg ñaari yi war nga ko am si dutu ceddo ak deretu sëriñ ñaar buy daal ci yow kenn du gën dama ni si duutu ceddo nga am ko sénégalais ak deretu sëriñ yàlla rek la mhm. ku ko am mën na doomu réew mii nga mhm. man de loolu lañ ma jàngal waaw loolu laa dégg say maam mhm. te loolu la moom mu wóor ni ku mu nekk ci yow kenn du la mën a jëm doo neex a jam Euh, am na euh, mag mu ñu waxtaanal jamono yële professeur Ablaye Soxna Diop ma koy nuyu au passage di ko gërëm moom itam ko disponible la pour suñu waxtaan wi euh, mu ni ma bopp jéeri joor ndee la Kànnaar Fall ak Serigne Dieye yëpp ma nga ca musée de l'homme bu Paris loola loo ci xam. non loolu leeruma moom. Hmm. waaye am naa xarit boo xam ki ma la xam ne Lorenzo. dem na ba Paris pour loolu rek mu ngi Italie. Hmm. Euh, ñu bari xam nañ ko ci internet bi xale boo am tubaab la waaye dafa bëgg Sénégal day woy ak Sénégal yëpp. di woy ay Samba Jabar rek Amadou Ndiaye Samb. di ci góorgóorlu di analyser syntaxe yi ndax daa bëgg histoire Sénégal mbooru Sénégal. dem na foofu waxtaan naa ci ak moom. nee ma ah, en tout cas gisul lu mel noonu ñu def ci tête de jéeri. donc man ngaa dem la gis ay bopp. man ngaa gis fa ay loxo ak nangam. ci musée yi waaye ah gars yi de gisaguñ ko man de gisaguma ko ni teg na ci bëtam. moo tax mënuma cee wax waaye leer na ma ni leer na ma ni am naa yaqin ni li ñu wone woon cees euh, hmm. teg ko ci marché ba. Hmm. kooku jéeri la preuve la woon waaw preuve la woon firnde la woon pour wane ne rey nañ ko tiitalaat nit ñi loolu leer na moom hmm. waaye xam naa ni ñu moom moom ci boppam. moom ñu ko denc ci mool yaama la des ci moom yëpp ñu ngi ko denc ci mool yaama ci ay bokkam. d'accord la ñu exposé woon Thiès. yàlla maa nga mool ma fa fa moom la woon. parce que ay bokkam nañu ko jël yóbbu ko. d'accord d'accord bañ daggee boobu ba ñoom dañoo ah, jël. ah xëy na ah. xëy na la mm. xam naa ne daal li ma leer mooy. Mm-hmm. mag ñi lu ñu woowee am na lu si rek dañ naan euh, ba baa nga France kii baa nga ma ah. kon Mariama fii ci réew mi lañ ko suul. d'accord man naam la tubaab jël boobaa yu mel noonu bu leen neexee. Mm. bu leen neexee nañ def lu ñaaw lu nekk. Mm. gis naa ci archive yi la. ay photo tubaab. ñu ñu photo ak ay bopp nit ñu ñuul ñuy dagg ñuy ñuy ci ah, jamono yooyu. gis naa ko am ma ci gis yu daw yaram. ma ne xool mi lii rek. waaw yu uh-huh. di jël ay bopp nit yu ñu dagg. Ah, yu Côte wala yenn saay nga gis ñu ñu ah? ñu ñu wekk leen ni ñuy wekkee mala yi daanaka. Uh, ci ay weñ ci ay mbir yu. xam xam nga mm-hmm. ñooñu ñooñu ay ay mala ko mën a def mala nga. Mm-hmm. nit ñu am na ñoo xam ne attanu ko mm-hmm. donte ay nit ñu lañ ko doon defloo malgré eux. ndax jamono yooyu bu tubaab masaan ñëw ci ab dëkk daan ni diw wala ñu réel la rek. waaw loolu trahison lañ ko mën a jàppee wala ñàkk pexe. ñàkk pexe la. comme kànnaar faal mi ak li ko booleeg jéeri mu mu mu mu mu ànt na dem jëli ji ko pour indil leen ko. boo deful ñu réel la boo deful ñu réel la nga jëm ak ñoom rek jamono yooyu loolu am. def la ñu bëgg def la ñu bëgg pour nga génn si pour nga sauver sa bakkan mais am na yoo xam ni bon situation bu ma ko doon indi. am na yoo xam ni ca jamono yooyee situation bi moo ko doon ni waaye am na situation yooyu ñu mu ñu mu ñu mu daaneel waaye am na situation yooyu am ñu mu yëkkati ba faw ci ndax dañoo dañoo jaay seen bakkan dama ni dama ndax ji nga fi wax ak euh, kóllëre geeg lépp euh, xëy na li xel mën a jàpp mooy ku ñu ne defal lii yow sa bakkan da lay gënal euh, da lay jaral nga nga bañ ñàkk seen bakkan la leen gënal ñu def ko gënal waaw ok ñooñu nag ñooñu nag ñoo des ci histoire hmm. ñooñu la ñuy nettal seen histoire ñi nga xam ni ba leen tubaab bi def loo nangam hmm. dañoo lànk mu jaral leen ñu rey leen ñooñu nag war na leen woy hmm. ndax dañoo wane suñu jukkoy réew dañoo wane suñu jukkoy réew suñu askan seen bëgg seenu bopp bëgg seen askan bëgg seen mboor ñoom dañ ko wane ñooñu nag ñu jarawee lañ ngir jeexal jéeri jotoon naa falu wala déet. ah non falu loolu nekkul woon damel déedéet. doon damel gan mi la woon rek. doo doo mbaayam moo doon euh, damel. waaye hmm? moom fàq. xam fii la yem ci waxtaan wi ma bàyyi la nga tàggoo. Ah, ma tàggatoo. waaw ah, yàlla bu nu tàggoo. fa faa ñu ñëw jël ay ay cours macha allah. yàlla bu nu tàggoo mukk nag. <laughs> waaye naa tàggatoo rek. tàggatoo di la gërëm di la sant. <laughs> Ah, di wax ni li ma ci xam rek laa wax. te li ma ci xam. Mhm. dama ko dégg ci samay maam. dama ko jàng itam ci ay téere déggoo ci itam ci ñi gëstu yëpp rek da di ko tasaare euh, ci ñoom laa ko déggee euh, lépp loo xam ne wax naa ko ci loo xam ne loo rafet la xam leen ni sama yéene la euh, boo nga fekkente ni dégg ngeen ci leneen loo xam ne kon damaa juum na ngeen ma jégal te ngeen corrigé ko na ngeen woor soxna si na leen jàll ngeen woor soxna si mu invité leen ngeen ngeen dolli li ma matalewul wala ngeen corriger li nga xam moom laa joome di leen gërëm di sant yéen ñëpp ñu itam ñu ngi lay gërëm euh, Babacar mbay Ndack euh, di jàngalekat bindkat euh, moom itam di ku gëstu lool ci wàllu histoire doon ñu waxtaanal tey ci Jéeri Joor Ndeela Fall ñuy gërëm professeur Fat Sow ak professeur Rokhaya Fall xamante bi ci ñoom la jaar waaw muy ñoom itam ay nit yu baax macha allah say xarit lañu kon ñoo bokk ay xarit ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbokk yi li émission démb ak tey eh, sant leen gërëm leen ci déglu bi gërëm itam Adama Diallo mi fare woon ci wàllu machine bi Fatou Thiam Ngom moo ne ci kàddu gi ngir jeexal ñu dégtal leen taalif bi nga xam ni suñu gan gi tey moom moo ko na a def eh, bégalee leen ko eh, kon ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm